am na si ñaar ñoo xam ne dañu daan gàdd pot di yalwaani ndékki ak añ ak reer di yalwaani li ñu yóbbu ci daara ja ba yàlla def ñu mokkal alxuraan kon fépp fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp-tepp kon fa mbir ya daan baaxe ba léegi naka te yàqoogu fa daaray alxuraan ji yalwaani di tajwid ba mokkal alxuraan ci anam bi ñu ko mokkalee ak njàng mu set mi mu ngi am ba léegi waaye bareetul de kon nag ñoo ngi ci ndokkeel aka delloo njukkeel waa daarul alimul xabir jëpp ci njiital sëriñ Mouhamadou Fadal Mbay ak ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk lépp jàngal ay mokk ay ndaw ba ñu mokkal téereb yàlla bi di cheikh Mouhamadul Mbay ak cheikh Mouhamadul Moustapha Mbay kon yàlla leen yàlla fay kon dama bëgg nit ñi toog rek ñu tàmbali programme bi ndax dañoo bëgg trois heures fekk lépp noppi dañoo bëgg trois heures fekk lépp noppi ñu bàyyi xel sëriñ Tuubaa dane woon wajaal bi jaahil muntaqa xayaati riayatal qur'ani vilayaati mu ne ci barkeb yonente bi sallallahu alayhi wa maa ngi lay ñaan yow yàlla nga def sama dund gépp mooy sàmm alquraanul karim sàmm li nga xam ne mooy alquraan kon nag ku yàlla baaxe nga bokk si ñu koy sàmm war ngaa santaat yàlla kon woo الطالب عبد الفتاح عبد الفتاح مي الحامل لكتاب الله تعالى الحافظ برواية ورش عن نافع دي دومي sëriñ alxaaji mbay siñaata ak soxna xadijatu faal moom nag jamono bii ñuy waxee tey waajuram wu góor teewul jotaay bi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana te yàlla sàmm ko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 بسم هدى للمتقين wal bul lu tiis de ndax du jaas xale bii doon tari tey waajuram jóge na fi tey anam sax la fa mën a du alal ju bari joo de du njaboot bu bari joo de du dara loo lu dul téereb yàlla bii moom rek tey ngay araf yaag leetar yaag baat yaag lépp du fekk sa waajur fa mu tëdd yàlla nañ yàlla xéewalee doom ju mel ne Abdou Fattah bii doon tari tey kon nañ ko bàyyi ci xel loo baax baax loo sàggan sàggan doom yoo am rawaleen te rawale njaboot bi nag mooy jël leen yóbbu leen ci daara ñu jàng alquran kon sëriñ Fàddilu Mbay bismillah sëriñ Fàddilu Mbay di doomi sëriñ Jili Mbay ñu gën koo xam ci sëñ Abdou Xaadir Mbay di jàngalekatub alquran joo xam ne bari ay daaraam nekk bari na ñu génn ci moom jàmbaar la ci téere bi waaye nag jamono bii daaraam ma nga ca Bambilor bari na lu fay ci ab liggéey bu rafet moom it kenn la ci suñu mag daara yi ñi nga xam ne jàngee nañ fii ci kër gi di rakki Serigne Fall Mbaye mi nga xam ne mooy euh, jiital liggéey bi di xale bi di tari di turandooy ki nga xam ne moo jiital liggéey bi di doomi soxna suñuy wax Faatimatu Siin maam kon nag lañ doon wax rek kéwal bu tëb doom jëbët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 السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا suñu boroom ci xeewal yi nga xam ne xeewale nañu ko te yiñ ci xam tuuti lool wuuteeg yi nga xam ni xamuñu ko tam bari lool ñu ngi boole yi ñi xam ak yi nga xam ni xamuñu ko di ko sant ci xeewal yi di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal yàlla yokk xéewali di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ànd ak mbégte lool ci jotaayu alquran bii nga xam ne jotaay gënu koo fare kaw xam naa ne lii may wax euh, du moo tax ñu jox ma micro bi waaye nag xol bu seddee mën naa wane loo xam ne dëgg-dëgg bokkul ca la tax walla boo ci programme bi ne fii ñu tollu wax dëgg yàlla man jàpp naa ne amul benn xéewal bu ëpp sa doom mokkal alxuraan lu ma doon ñaan yàlla la yàlla may na ma ko alhamdulillah maa ngi ñaan mbooleem ku ci tànt bi nga santale ma suñu boroom nga wax alhamdulillahi rabbil alamin ku ko wax ñi ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala li mu diggee ci kiy sant yàlla na la ko defal yàlla na faj aajo yépp waaye ñi ngi suñu mag ju mat di sëriñ Mouhamadou Fadal Mbay mi nga xam ne lu jiit njaag mooy njaag moom mooy lépp wax dëgg yàlla dey man dey dama koy tiitaroo ndax mag ju mel nii yombut kon nag ñu ngi koy ñaanal borom bi tabaaraka wa mi nga xam ne mooy maye yal na yàlla guddal aw fanam te yokk ak wéram daara ji ci lañu jànge suñu doom jànge ci kon daara ji yaakaar naa ne du léegi bu ñu xoolee daara ji ba mu sosoo ma nga njëkk sosu ci soixante-quinze ci sëriñ ñoom Isa Amar mii nekk sama pegg bokk na ñi njëkk génn ci daara ji ñoom sëriñ Fallou Mbaye mi ngi leen jàngal ci ñaari at mooy kër sëriñ Omar Amar bi mu génnee ci loolu soixante quinze soixante seize ci la sëriñ Fàllu ubbi daara ji kër ñang sëriñ Moodu Xari ñang rahimallahu alayhi yàlla ko yàlla boole ci waa àjjanay firdaws jàppale ko lool def ko doomam depuis boobu ba léegi dëgg-dëgg daara ji man damay wax ne internat maa ngi ko njëkk a ci daaray Sëriñ Fàllu Mbay internat maa ko njëkk a ci daaray Sëriñ Fàllu Mbay ndax booba dañ daan tëj di tij man mi bokkoon naa ñi daan yor caabi buntu kër gi léeg-léeg bokkoon naa ci waaw kon ñi wax ne daara ji yàgg na boobu ba léegi nag li fi jaar ci ñu mokkal wax dëgg yàlla bari na bariwaay boo xam ne xam naa ne mënee suta euh, xam lim bi kon daal ci gàttal daara ji yàgg naa def lu mel nii xay na lii day xewet woo xam ne xewutoon ci jamono boobu maa ngi jéggalu il faut ma wax xam naa ne bu fekkee ne foqar ci micro lañ koy tuddee il faut ñu tuddee ko loolu waaye di wax ne rekk yéen gone yi nga xam ne tey yéen a doon seen baay yàlla na doon bi mat sëkk yàlla ngeen dem ba xam naa loolu la ñaan ku nekk loolu ngay ñaan doonte yombut waaye ñu ngi leen di ñaan li seen baay def ngeen def lu ko raw doonte yombut waaye nag yéen ngi ci yoon bi di Cheikh Bachir Mbay ak sëriñ mustafa ak sëriñ Moodu Ah, ila axiri ñoom ñëpp wax dëgg yàlla macha allah suñu xel suñu xel dal na ci ñoom yal na yàlla defal leen cet kon daal eh, comme ñu ngi may wax ne ma eh, xëy na lii bokkutoon di tax ma jël micro bi waaye li duuf eh, xajul xaw ni ñu koy waxee xajul ci li duuf ci nag yu xajul ci cin li kon na xam naa dañ koy bàyyi ba beneen yoon ñu defaat ko ci beneen incha allah di wax ne sëriñ abdullahi mbàkke ibnu sëriñ bachir faadal teew na fi ak sëriñ abo baraka muhammadu moom muhammadu bachir ba moom it teew fi ak cheikh ummi mbàkke muhammadu muhammadu bachir moom it teew fi ak soxna maam busa mbàkke moom it di waay juru soxna Maawa Mbàkke moom ñu fi doon tudd ak sa ak sa seex ummi moomu moom it teew na fi ak waa kër Serigne Bachiru ñépp wax dëgg yàlla def nañ délégation bu am solo ñëw nañ ñu ngi leen di jaajëfal di wax ne bis bi seen bis la yàlla na yàlla barkeel njaboot gi ak lu ci aju lépp ak Serigne Abdullahi waaw Mbàkke sëriñ xabbaan mbàkke ak sëriñ abo mbàkke baraka moom it tuddoon nañ ko fale ak sëriñ cheikh ummi mbakke cheikh ahmadou bachir ñang euh, ak soxna maam buso mbàkke soxna maam faati mbàkke euh, sëriñ xaadim Touré muallimul Qur'an di jiital ci njiital xaaliya surra euh, teew teew na fi ak sëriñ xaadi waaw ah, teewal sëriñ xaadi jaxate ci njiital rabitatul mudaris mudarisul qur'an mudarisul qur'anul karim sëriñ jiili mbàkke ibnu sëriñ maam moor mbàkke moom teew na amul bànqaas mbay soxna Xadi bu fekkee ne am na ku ko mën a nangu shahada bi ci benn tànkam wala bàjjanam nekk mën naa as kon shahada sëriñ Fallu Mbay sëriñ Xaadim Ñang Naylul Maram lañ bëgg mu jox ko sëriñ Xaadim Ñang Naylul Maram sëriñ xaadim ñang daa génn waaw si xaadim nekk fi de si ana maam maam soxna Fatma Sine ana salaatu wa salaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina muhammad ibni abdallah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ñi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziar bu baax a baax a baax ci bisu màgg bu tedd bi nga xam ne woote nañ ko ngeen wuyu si man de damay sant yàlla borom bi subhanahu wa taala comme ni ko sëñ ji li may waxee ñun ñëpp nañ bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin di feeñal sama yéene ci kontaan ak delloowaat lépp daaral alimul xabir ji liggéeyam bu màgg bi nga xam ne moom la liggéey firnde gi mooy ni ko euh, papay sëñ Fallou Mbaye waxee nee na moom moo ko génnee ñëw génnewaat doomam kon loolu duñu def lu alhamdulilahi rabbil alamin waaye di gën a delloowaat njukkal daara alimul xabir bi nga xamee ne génn na baayam te macha allah rëccuwul ni mu jaaree woon ci daara jooju ba ñëw ñu joxaat ko doom ji mu génnewaat ko ci anam bu rafet bii lépp dañ koy delloowaat ci daara ji nga xam ne liggéey bu rafet bi nga xam ne nii moom la daara ji di liggéey waxuma la Touba waaye Sénégal yëpp ndax foo dem tey Sénégal gis nga fa liggéeyu daara jii nii ku fa koo xam ne ni daara ji génne na ko ci liggéey bu mag bu tedd bi maa ngi sant ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant jigéen ñi nga xam ne ñoo newoon ci daara ja di jàppale gone yi ba gone yi mokkal alquran ndax xale bu ne ci daara ba mokkal alquran xam nga ne ñëpp sonn nañ ñëpp jàpp nañ ca maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp li ko dalee ci ku mag ba ca gën a nekk ndaw jërëjëf maa ngi sant bu baax a baax. sëñ Abdul Xaadir nag dañuy jox mu wax ci kàddu ñi génnee ki yi daarul alimul sëriñ Abdul Xaadir Ñang yaakaar naa ñu xam nañ ko ab jàngalekat bu mag a mag la te yaakaar na kuy déglu Lamp Fall FM da faral di ko dégg ci euh, ëttu daara yi di doomi sëriñ Moodu di ko ràññeeku jàng alxuraan bismillah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وخديم أجمعين bokk yi fi nekk ñu ngi leen di ziar ñu ngi am mbégte ci teew ci jataay bi nga xam ni wax dëgg yàlla mën nañ koo tuddee jataayu sëriñu sëñ daara yi muy sëñ Fallou Mbaye ndax defe naa ni lim jot a réaliser ci wàllu njàngum alxuraan buñ toogoon di ko wax fii ba suba du jeex kon nag suñu yëkkati kàddu fii mën nañ ni sëñ Fallou formé na ay junni ci ñun maanaam li may def nii ay téeméeri téeméeri nit manoon nañ koo def kon xëy na dañuy sante yàlla rek li ñu jox kàddu ngir ñu yëkkati ko ci jataay bi waaye sëñ Fallu ñàkkul ku ko defal ak ku wax ci moom ndax lim formé ci ay nit kenn xamul nu mu dafa naa ne bi jataay bi tàmbalee ba léegi ñi ko yore ak ñi ci taabal ji ak ñi ci kaw tribune bi yépp ay nit lañ yoo xam ne moom moo leen formé eh, ñun nag ci suñ fàllu bopp xam nga doomu aadama bu ne dafa bëri ay étape yu muy jaar mën nañu nag ginnaaw ak dal daara rek ci sëñ Abdoul Aziz Niang bu ñu doon ab tabax fondement bi sëñ Fallou Mbaye mooy fondement bi ndax moo ñu jàng alxuraan bañ mokkal ginnaaw ba lañ fa door a jóge dem kër Serigne Saliou defe naa tabax nag Euh, fondation ba mooy déterminer la ñuy teg ci kaw maanaam boo bëggee def étage defe naa ni doo def fondation terrasse il faut nga def fondation bu dëgër mooy tax lu ñëw mën caa tegu kon ñi xamul loolu nañ xam ni moom tey bu ñu doon ab bâtiment fondation ba ci moom la dooree te loolu nag ñu baree bari la fi jaaral waaw muy kilifa yi ñu fekk yépp ñu sëñ Modou Congaan ñoom ñi muy sëñ Abdou Karim Mbay me muy sëñ Abdou Karim Ñang euh, te loolu rek mënoon nañu tudd Abdou Karim rek mu doy sëkk ci seere ci loolu ndax bu fekkee yow danga jàngal nit kooka di jàngale ba génne ay nit ba cay génne ay ay ay lim yu bari ci benn tari lu mat ay ñaar fukki nit nga di leen génne ci benn jataay ci benn diggante boo xam ne yow maanaam mën naam daara ji amagul fukki at loolu ci réalisation kenn mosu koo gis kon loolu lépp bu buñ ko ëmbaatee day del si waat ci daara ji tey waaw kon du du lu ñuy wax nii rek waaye dafa nekk loo xam ni ay wax yu dëggu la maanaam ñu jël benn exemple duñu wax jili ñang duñu wax sëñ jii li mbay waaye buñ jëloon rek ci lu li gën a mujj nga xam ne mooy événement yi gën a mujj ci fan yi euh, muy sëñ Abdou doon ko def fële ca Kër Massar te sëñ Abdou Karim moom njàngam mépp ci sëñ fan lu la maanaam mu génne lu man ñaar fukki nit ak lu topp kon loolu bu ñu doon wax rek daarul alimul xabir ci réalisation yoo xam ni ma ngi ko def depuis ñu ko créé ba nëga ba bu yàggul dong kon loolu rek benn exemple boobu doyoon kon du jar ñuy guddal naan def na li def na laa waaye dañuy wax loo xam ni moom lañ dund démb mooy fondation bu dëgër bu mu def ci nit ñi waaye ànd kook ñoom nag ba tey jii ndax man maa ngi seetlu jamono bu ne loo ko woo ci lu jëm ci alxuraanul karim li muy doon doon sa kilifa maanaam day ñëw ànd ci ak yow waaw mel ni sax da nga ko gën a xam wala da nga ko cee jiitu déedéet waaye ñor gu ko liggéey bi ñor ak bëgg liggéey bu lislaam bi jëm kanam moo waral modest googu ne ci moom loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin noonu la yu baax ñëpp di mel maanaam mooy dangay man lool xam lool waaye wayaf lool ba kenn ku ne man laa jariñoo loolu wax dëgg yàlla moom lañu xam ci sëñ Fallou Mbaye bañ koo xamee ca daara ja ba nëgëni jàng ak jàngale julli ak woor yooyu rek ci la nekk waaw ñun mën nañoo seere loolu ba ñuy ànd ak moom bu yàgg ne ca kër ñang ci daara alaaji omar alaaji eh, omar amar jooje di mbokkum ñoom sëñ Issa Amar mii ba nëgëni gisuñu lu changé ci sëñ Fallou Mbaye mooy day day yare day jàngale bu nekkul ci yooyu rek ma nga yor kurusam wala ma ngay julli loolu nag la ab julli di mel ku baax noonu lay mel moo tax buñ gisee tey njabootam dajaloo fii tey dajale seeni daara ñëw di ko def di ko njukkal loolu du ñu bett ndax eh, dañuy wax ni booy def lu baax mel ni gisagoo ko déedéet dañuy wëri seeni mbokk bis rek lañuy ñu dajee ñëw ñu këpp ci sa kaw kon lii tey wane na ni sëñ Fallou mbay yàgg naa liggéeyal yàlla waaye njaboot gi yar na leen ci lislaam ba lii ngeen fi gis tey muy ci taabal ji muy Abdul Karim mi nga xam ne mooy yor micro bi di borom xam-xam bu mag macha allah ku ko déglu xam ni am na formation bu baax bu dëgër teyit méngoo na ak jamono xam-xamam rafet na waaye ku déglu gone yi jàng alxuraan danga xam ni ñi leen doon jàngalal muy ay doomam muy sëñ Modou mbay ñoom ak rakkam yi topp ci ginnaawam ñëpp da yég ni ñoom itam ay liggéeykat lañ yoo xam ni la seen waajur nekkoon mujjewuñ poso bu mu ah li ñuy def nag mooy soññaat suñ bopp ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo àndoon ak sëñ Fallou mbay te ba nëga ni ñoo ànd te duñ tàggoo mukk ndax liñ séq mbiri yàlla la te mbiri yàlla moom ba ilal janna la lay doon ah, ñun nga xam ne ñoo def ab kuréel nekk ci daarul alimul xabir ñi ngi soññ suñ bopp ci ñu gën a jàpp ci liggéey bi ndax kat loolu dong lañ ko banal ndax bu dee jàng ak njàngale am na ñu koy ci taxaw am na ñu koy defal liñ man nag mooy kenn ku ne la nga man ak koo xam ci koo xam ne mën naa jàpp ci liggéey bi nga soññ ko ci mu def ko jamono ji nag xaw naa diis waaye nag defe naa ne kenn deful lu gën loolu ndax loolu delloo naar bi euh, xorom la delloo yàlla njukkal la te ku ne xam na ni euh, ki la jàngal mënatoo ko fay ba àdduna tukki te njekk dañ ko war a delloo ci anam yu bari kenn ku ne na nga ko manee na nga delloo njëkk la noonu te sëñ Fallou Mbaye ji nañu teraanga joo xam ni ñun mënatuñ ko koo fay ndax ku la xas amal xamal wenn arab rek kooko sa buur la sa kilifa la sa sa lépp la te moo ñu jàngal moo ñu yar kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla bàyyil na ko fi mu ànd ak sagoom dëgëral ko lool ba ba mu toog ba ay sëtaatim sëtaatam du organiser lu mel ni ci ñun ñëpp ñu fekk ko kon bokk yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jéggulu ci kàddu yi ak euh, ñàkk mat gi lu ci manqué ci man la waaye yéen ñi ñu ko sant matal ngeen te rafetal ngeen hal jazaawul ihsaan nag ilal ihsaan sëñ Fallou daal xëy na lu mu gisagut waaye man jàpp naa ne teraangay àdduna june ak ju àllaaxira june dana ko am moom loolu moom amuñ ci sikki sàkk ndax lu baax dong ci la nekk liggéeyal yàlla ci la nekk liggéeyal Cheikhul Khadim ci la nekk te amuñu mosuñoo gis kenn kuy def lu baax di am di am leneen kon yàlla na la yàlla sàmm te aar la te barkeel la te ñuy sàkku ci yow it di ñu ñaanal ndax ñaan moom du doy mukk sant nañ yàlla bu baax waaye nag ñi ngi sàkku nga gën ñoo ñaanal ngeen tam ñu ànd ak yéen ba li ñu yéene ak li liñ bëgg a def bëgg ko gën a jàppee ci liggéey bi ñu mën koo def xam nañ ñu ñu gàttañ lu lañ ñu ñu ñàkk euh, man lañ ñu néew euh, solo lañ waaye nag suñu yéene rëy na te yàlla lañ koy seereel yàlla na la yàlla sàmm te aar la daara ji yàlla na ko yàlla gën a yokk lii ngeen def tey nag dafay lu rëy ndax liggéey bu ne ànd da caa gën a rafet ndax ku mën ngaa dem alxuraan yëfi yàlla la yàllaa koy sàmm ku ci yëngu ku ne yàlla dana la teral dana la defal li nga bëgg waaye àndandoo def nag mooy li të te loolu dong la jullit ñu war a xëttewoo moo tax lii ñu ngi leen ci encouragé ñun bi ko déggee dañoo neex lool ñu ngi ñaan mu jëm kanam ku ca nekkutit yàlla na nga dem ba nekk ca ndax àndandoo liggéey bi rek a des waaye liggéey bi rafetee na fépp waaye nag di ko ànd di ko defandoo maanaam loolu day gën a jëmmal lislaam day gën a xam ñu tax ni seytaane du am bunt bu mën a jaar ci diggante yi kon yàlla yàlla nangul ñu ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamu aleykum wa rahmatullah. yéen mbokk yi dama bëgg ngeen digloo ma xel te bañ maa digloo xol ndax li may wax njariñ la te ñépp mën nañ cee jariñ naylul maram daara tuuba aafe moo jugati ngir yee njaboot gi ci portaabul te mooy waxati naylul maraam daara tuuba aafe moo jugati ngir yee njaboot gi ci portaabul tamoy mooy waxati cëy yàlla cëy téléphone ab jumtukaay la bu xew jigéen ñi ak góor ñi mag ñeeg ndaw ñi taax ak kaw ñépp ay manipuler ñii xàmmee ñeneen ñëgalam xamuñ njariñ la te duñ moytu loram ya mu am am na njariñ waaye lor yaa tax ma jël xalima fas yéene cee indi lool kenn dootu wax xamuma fekkoon na nañuy bind leetar yónni ndaw yu sawar ñu wari fas teg ca ay teg baa ñu dox bañ a ma saaxew bataaxeel yaa ki ndaw lañu jël siiwal ko fépp te daawul yàq baa di la jël ab téléphone daawu ñuy wan ay message ak a jël ay film tey garde ay wax fàttali appel wu yoo ko woote la daan def nekk benn ci kër baa yor ko ba sama yaay ay woote daawuñu lool mais léegi fépp la waa kër gi lu xale ndaw ndaw benn baa ñaari portable la ca yorandoo fu mu toll naa wii alu envoyé ay SMS ak recevoir lu mu baayam ba ndeyam di ko gis envoyé ay photo ay film ki wan xaritam loo xam ni moos jëkkëram rek kay ka koy war a xam mu doo ngi wootee ka wax moom it coof la te ba mu gisee faatu lu mu waxoon dil la dig na ko kër ak otoog dem Makka par téléphone ndekete yoo muudu moom gontul xëyul du ko man portable yi jumtukaay boo xam ni kenn tawu li fekk njaboot gaa ngi ko yor yar bu baax jafe ko portable yi jéggi ay gardien ba bi sa kër yootaan sa buntu ya waxtaan ak njaboot ya nga yor du ngeen ci yëg dara ñuy jokkoo ba duñ talati liggéey julleeg jàng alquran te duñ tëddët appareil boo gis lu bon am na ab bultuuf ba weefu buy am connexion rek gars yi di boobu connecté nag dugg Google Imo Skype WhatsApp Play Store Watango YouTube Facebook bi ay ami album publié ak wane Twitter ak Viber Instagram photo wu moo tax élève buy connecté tardé heure u classe am not yu bon ndaare ak dàq ak redouble classe yéen ñépp wax li ci portable te cay li ci ne mbooleem ku xam la mu làmboor rek sa doom du ca ne sëy tas na ngir sms góor fase ngir téléphone soxnaam ci erreur jigéen it fay na ngir téléphone ak mbokk yàqu na yaakaar tas na ngir téléphone ay doomi nday xëy xuloo wooy fu mu jëm ak téléphone nan yee njaboot gi di diisoo ak ñoom ba duñ beru ku njaboot beru ji seytaane ka koy fawe nan muslu yàlla ci seytaaneeg ña koy dimbali bu man ci ñun tus njaboot gi raw ba ñuy dimbali wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa rahmatullah salaam wa rahmatullah wa barakatu وقال يا بعد أعوذ بالله من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 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ما شاء الله وأن تخافوا لك جنة وعرضنا جهنم

أعينهم في عطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فأبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله nga tàmm na nga yor ngir jëm ci Sëriñ Tuubaa nga jox ko addiya waa daaru amul xabir kon ñii fotow bu noppee ñu def gaaw ndax programme bi dañoo jàpp te photo boobu ci programme bi ngeen gaaw ngeen gaaw programme des na arullalimul xabiru ñoo del si way fi njukkal doonay rasulu daarul alimul xabiru ñoo del si way fi njukkal doonay rasulu Maru سر بتوبى قادم رسول كبيدكم دكتنونم تتوكم نمك ورسوله Yàlla ko tànne fa bar ya génne moo tax ba diine ngi dootul suulu génnee ko dëkkam mu yokke kok ngam di roy rasulu dakee ci xat xat tamus la sax xat masul xaadim rasuulu masul di jàmbat borom ba ci gat tamus la jéggat la noon ya suulu fandar jamet teela yàlla at te dootum fafat te xaadim rasulu

rukun di falluh كرب معيدم جاجي غرقم لدن كلفم دموم لولو Yes.

Tanan gubernur Banang Madeklu Bangka dikennu, dudomi kennu, Dubai kennu, dawam rasuluh ñu sox ko aybal jël gaynde xiifal ko dal di jébbal xaadim rasulu نعات ربي على الحبيب أل وصحبي ñagam ko wóolu yàllal habibi alin ñagam ko ñagam ko